9h30 moo ñu woo bi ñu ñëwee fii ñu ngi egsi fii 9h45 bi ñu egsee nag kii kii bi ci leen trouvé ñetti nit yoo xam ne dañ leen rey maanaam dañoo dee muy ku góor ku jigéen ku ndaw ku am un ak ku jigéen ku jigéen ki nag ñu ngi ko fekk ci kaw lalam ku góor ki ñu ngi ko fekk ñu pendre ko xale bi mu ngi tëdd ci biir bi mais pour l'instant defaguñu dara laalu ñu dara commissaire bi dafa woote dakaar ñu ne ko bu leen laaluñu def parce que police scientifique mooy ñëw donc ñun on est sur place actuellement nii par police scientifique ñu xool lan la ñu war a def. 9h30 la ñu woo rek nañu bon découverte de trois corps sans vie la donc ñëw nañ xool muy trois trois corps de découverte sans vie donc euh, loolu daal lan fi mën a wax. Hmm. waaw amuñu nag police mooy def enquête bi. mais nous on attend la police scientifique pour